ak bopam mo am ay leunt lënt yu ñew ci xelam muy laaj te du am tont mu dem ba mujj mu yaakaar ne loola amatul tont fekk amna na tont kay xanaa daf ko tonto fenen fu mu néewut c'est pourquoi ceux qui se pensent imbus de leur personne qui pensent qu'ils sont le centre du monde qui pensent que ce qu'ils ont est merveilleux ignorent les grandes victoires des autres yenn saa yi mbokk yi nga gis ko fëgg dënnam ne mana mana mana a li ma am man maa jàmbaar buñ ko nettali woon jaar-jaaru kim dëkkal buñ ko nettali woon jaar-jaaru kim romb buñ ko nettool jaar-jaaru kim war a dab dana xam ne moom du dara ndax sax kenn du dara chaque fois je suis étonné quand je vois une personne bomber la poitrine frapper la poitrine pour dire je suis exceptionnel si vous êtes exceptionnel c'est que vous n'êtes pas la règle mais comme vous confirmez la bonté des autres mbokk yi damay gis nit fëgg deunam ne ken du man waye bu ku ken du yow ya yalla keneen ku yaakaar ne kenn du yow xamal ne yow sa ken googu nga fëgge sa deun mo wone nit ak ñeneen ñi amis du monde gens de bien on peut être meilleur que tout le monde mais on ne peut pas être meilleur que la terre qui nous a vu naître wala fi nee man nga ne gën ñep waye mëno gën suuf sa nga juddoo car à chaque fois comporte les empreintes de notre personnalité, qu'on est imbu de nos valeurs et qu'on s'en glorifie nous sommes au début de notre déclin gis nga mbokk fu ngeen gisee nit muy naw alalam xam leen ne alalam ma ngay waaj a jeex ku ngeen gis muy naw xam-xamam xam leen ne xam-xamam ma ngay ruus te yëgu ko ku ngeen gis muy naw ab juddoom xam leen ne am na lu ca raaf te dana gàkk te moom du c'est pourquoi amis du monde gens de bien ce qui nous lie comme le disait le président Senghor est au-delà de l'histoire Quand le président Senghor doon wax rek lu nu boole romb na c'est pourquoi il faut qu'on arrête de s'invectiver il faut qu'on arrête de s'insulter il faut qu'on arrête de dénigrer et de dégrader les autres kon le président li am solo mooy kay kenn ku ne ci ñun xam ne li pas war du xas nit ñi du ŋàññi leen du jéem leen a toroxal le véritable mérite d'une personne, c'est d'essayer de donner de la grandeur aux autres. ce qui fait la valeur de l'homme n'est pas sur sa peau ce qui fait la valeur de l'homme est intrinsèque et enfui dans ses comportements ses attitudes et sa force personnelle bul topato ñeneen ñi topatol sa mbiri bop tay liggéey te bañ a ami du monde j'entends souvent dire ne cours pas après les gens sois toi-même occupe-toi de tes propres affaires et sois dur à l'effort ñu ci faral di teg ne nit ñu baax ñi ñi nga xam ne yàlla na danañ bokk ci sa àdduna bi du yow yaay jóg wuti leen waaye yàllaa leen di yebal ñu ñëw ci yow alors retenons cette belle phrase de notre ami Will Smith qui dit que les bonnes personnes, celles qui te sont destinées et qui sont destinées à faire partie de ta vie, viendront elles-mêmes vers toi et resteront. du ku jóg rek koo bëgg a àndal rek nga war a àndal ñi nga war a àndal yàlla la leen di tànnal yenn saa nga dem ba am juróom fukki xam nit ko xamne da ngay recc lu tax xamoxone ba nga juddo yenn say nga xam nit lu tollu juroom fukki at bu ngeen demee ba juroom fukki at nga recc lu tax nga ko doon xam ndax da ngay soog a xam ne xamoo woon ndax lam la daan nëbb bëri lu yàq ci àdduna bi yëpp ci yow ndekete moo ko daan yàq te yëgoo ko amis du monde gens de bien les bonnes personnes ne sont pas forcément celles avec qui nous avons fait un long chemin ceux que nous découvrons en cours de chemin peuvent aussi être de merveilleuses personnes kon tey mbokk yi lépp gis ngeen tëdd na ci nit ak wanewu nit ak tiitaru vous avez bien compris que le conte d'aujourd'hui parle de la vantardise de l'homme Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, auditeurs de Radio Sénégal International, il y a des gens qui ne sont heureux, disais-je, que dans le malheur des autres. am na ñoo xam ne bu ainsi en était-il en était-il de Kam Kam Diaw non le melon. on raconte dans le vieux temps du vieux temps que ce

mu lorsqu'il était dans une place publique bu daan Tidjataï, et qu'on disait du bien de Salimata ou bien de Moussa il disait forcément le mal qu'il savait d'eux bu Tidjataï toog ci jataay Dialore Salimata Diop mbaa jaloorey Moussa Mbaye Mom, bu ko la dana bon la mu xam ci ba bon la mu ci ñoom ami du monde gens de bien un jour le roi appela tout le monde bis mbokk nyep, et leur dit je veux que chacun de vous m'amène le meilleur de ce qu'il a chez lui mu ne dama bëgg kenn ku ne ci est, dem këram indil amis du monde gens de bien ils étaient douze chefs de famille fukki borom kër lañ woon les onze revers avec du diamant, de l'or, de la vache, du riz, du mil Mboki fuki fukki ak Ben, ni di ni indi wurusu ngalam indi Khalisugal, ni indi aw ñam ñii kenn indi amis du monde gens de bien Kam faisait partie de ces onze et Kam avait amené de l'or Kam mbokk yi ci fukk ak benn yooyu la bokkoon te ba muy ñëw dafa indi wurusu ngalam mais il y avait une douzième personne plus intelligente waaye amoon na koo xam ne mooy fukkeel ak fukki fukki fukkeel ak ñaar bi kooka moom doomam la indi ju góor ak doomam ju jigéen la douzième personne lui avait amené deux de ses enfants un garçon et une fille bi buur bi nako ko waa yow ma lu upp njariñ sa kër lu lu gënal sa kër nga indi say doom indi ay ni indi or ñi indi yow lu waral le roi lui demanda la raison de son comportement car les autres avaient amené des biens précieux et lui il n'avait que ses enfants mu Bourbi ne bour bi mom la ñaar la douzième personne dit au roi Bour, roi mon cher roi majesté le roi Bour, yow mi te magal, la te sargal la te ko majesté dont je reconnais et accepte le trône donné par Dieu Bour, xamal Ni ñii la am Luma am sama kër ñi man nañ ko liggéey am sama kër mënut liggéey pourquoi est-ce que j'ai amené mes enfants majesté oh majesté vénérable et raisonnable tous les biens matériels que j'ai chez moi sont des biens que peut fabriquer l'homme mais ces biens n'ont jamais fabriqué des enfants. Je n'ai de précieux que mes enfants. buur ne kon pas na yéen ñëpp li nga xam mom ngeen am ndax dama len ko bëgg Et le roi leur dit gardez tout ce que vous avez ici chez moi car je vous avais appelé pour protéger ce que vous aviez de plus précieux. ah mbokk ñi ñee joxe wurusu ngalam ñi joxe ay nak ñi

mais encore vivant le roi à l'insu de tout le monde avait investi les biens qu'on lui avait donnés il avait vendu l'or et en avait fait des bénéfices le diamant avait fait des bénéfices et l'émeraude avait fait des bénéfices le mil avait été semé le riz avait été semé et tout cela avait été récolté ndekete mbokk yi buur bi ñoom ba ne wëriñ wan ko gannaaw kenn ku ne alal jang fa bayyi da ca doon liggéey ngir fulandil lako ku fa bàyyi woon wurusu ngalam ah mu koy jaayee ko jënd jël sa bénéfice tégal la fa képp koo xam ne waccoon nga fa dugub mu jiyal la ko ku ko joxoon gerte mu jiyal la ko lañ ca góob lépp pendant 20 ans, le roi avait fait fructifier les biens de ses populations. c'était des richesses immenses. Lorsque le roi convoqua les 12 chefs de famille, dont il ne restait plus que 8...

mu ne leen la ngeen ma dénkoon de mi ngi fi waaye ngeen baal ma tooñ naa leen ndax liggéey naa ci te waxuma ko ne bi am alal moy buur bi njabootam am alal buur bi aw askanam am alal waaye du buur bu fuuyoo alal ji wax ci Afrique du Sud ubuntu munuma bég te bégoo sama mbég mooy mbégu askan wi Ami du monde gens de bien oui ubuntu je ne peux être heureux que lorsque mon peuple est heureux dit le roi ca noonu mbokk yi ah kenn ku ne indi say jaaj tak ñi ñii liñ yor ci or kenn xamul nu toll ñi liñ yor ci alal kenn xamul nu toll ñi liñ yor ci dugub ak ceeb kenn xamul nu toll ki joxe won nak amna fukki gétt ak ñaar amis du monde gens de bien les uns étaient chargés d'or au point qu'ils avaient des problèmes pour le déplacer je ne parle pas du diamant qui avait été fructifier. Non, ne comptons pas les sacs de riz, ne comptons pas les sacs de mille. Ils étaient immensément riches. Immensément riches. nekk que Mboki, booba ñoom am alal te ce ko kenn le douzième chef de famille arriva et se présenta devant le roi Mboki. kenga ki mom, Moi fukel be a taxaw ci kanamu buur bi buur bi daal na ñaari doom yi dellu leen seen kër bàyyi lii nga ma dénkoon sa alal a ngi ni yóbbul le roi lui dit voilà les richesses que vous m'aviez données vous m'aviez donné deux enfants je vous donne deux adultes bien éduqués et bien formés mu ne ko dellul keroog góor googu bi mu delloo këram réerut ndax bawu fa lu mu reeree lorsqu'il retourna chez lui il n'eut absolument rien à manger parce qu'il n'avait que ses deux enfants qui avaient grandi, mais il était vieux et n'avait plus de quoi manger. Mboki, yi doywar, wa dekk bi xëy suba di kex-kex di ko reey ñu tek at kenn ku ne soppi sa jëmmi kër defar ko nam gëna rafété waye mom kërëm këram sàkket daanu xari fu leen neex ñu jaar nag yi fu leen neex ñu jaar les autres pensaient qu'ils étaient riches. Ils étaient immensément riches. Car ils avaient pu, avec leur richesse, transformer leur maison. Ils s'étaient épanouis. Mais lui, le douzième homme, n'avait que ses deux enfants. Ses palissades tombaient et sa maison était devenue presque le lieu de pâturage de tous les moutons et des chèvres du village un jour, Kamdiaou, au milieu du village, alors que toute la communauté était présente, fëgg dënnam ne nag bi dañ ko war a defaraat ndax baye bàyyi yenn xeetu kër yi ñuy ne ci biir bi te bi na ba noppi nit da ngay am jom da attira l'attention du village sur le fait que lui n'était pas l'autre car l'autre était pauvre et que l'image de sa maison était une image avilissante pour le village Mon ami du monde gens de bien Kam dit encore que si certaines personnes étaient incapables de construire des maisons à la hauteur de la beauté de leur village, alors ils n'avaient qu'à céder leur terre et s'en aller, car ils reflétaient une mauvaise image. Amis du monde, gens de bien, ñaari yi am naqar les deux enfants amis du monde gens de bien eurent écho de ce qu'on avait dit ce qu'on avait dit à leur père ah et ils eurent mal waaye li Kaam Jaw xamul woon mooy xale bu jigéen bi mi ngi màggee ci kër bour. xale bu góor bi mi ngi màggee ci kër bour. ñi ngi magando ak doomi bour. amis du monde gens de bien kam ignorer que ces deux enfants-là avaient grandi dans la cour royale et qu'ils avaient grandi avec les enfants du roi Mais que yi Chofel, Duguna, na ci xolu ku jigéen ki ak doomu mes amis du monde il y avait un amour qui était né entre la princesse et le fils du douzième homme entre la fille du douzième homme et le jeune prince Nous, dem gis les baay ne ils durent à leur père la princesse et le prince si vous devez nous chercher un mari cherchez-nous des hommes qui ont la même éducation que nous et des femmes qui ont la même éducation que nous qui sont cultivés et élégants socialement Si bu góor bi doomu buur bu jigéen beeg bu bi dem seeti sen ne ko nu soxna mbay jabar bay tanal ñu kun bokkal yar tanal ñu ko yar ba jikom doynu tanal ñu ko xamne man na necc mbolo le roi convoqua tout le village et déclara que la main de sa fille et que le cœur de son garçon étaient disponibles pour tous les prétendants mais c'était à eux de choisir buur bi daal di wote mbokk yi daan na len man de damaa bëgg ngeen yëg ne bis na tey sama wa kër yi toll nañ ci sey muy ku góor ki muy ku jigen ki yëgle ko ku wa bëgg na ñëw waaye nak du may ñom kuñ bëggul ami du monde gens de bien les gens du village déferlèrent les cadeaux précieux furent rapportés au roi wa mbokk yi loo mën amut xanaa du dugub xana du gerté gàtt xel weesuwut ci këla njukkaloon ba nga am liggéey nga taxaw diko xass ami du monde gens de bien ils pensent ils avaient oublié que le roi avait fait fructifier leurs biens car l'enrichissement les avait rendus fous et ils sont allés offrir des biens précieux aux enfants du roi qui en avaient plus que ñu jënd bi kenn la mais les deux fils du roi la fille et le fils du roi les regardèrent et rigolèrent nous ne cherchons pas à être riches nous cherchons à être heureux

regarda le visage de la jeune fille, la princesse et du prince, qui pointèrent du doigt les deux enfants du pauvre. la ne ami du monde gens de bien Cam ne put accepter et dit au roi, mais roi, vous ne pouvez pas laisser ces enfants de pauvres prendre en mariage votre fille et se marier avec votre fils. Kam daal ne ko buur mun a mun a ko xanaa doo seetaan nag ñii nga xam ne danoo ndóol ba ah, ku te borom alali borom barke yi alors que nous sommes là nous les riches amis du monde gens de bien le roi regarda Cam et lui dit

ndax ki am alal mooy ki ay du monde gens de bien Kam n'en revenait pas mais le mariage fut fait alors le pauvre du village qui avait pris le soin de considérer ses enfants comme son bien le plus précieux pouvait bomber la poitrine mais il avait suffisamment de modestie pour comprendre que ce qui arrivait à Kam pouvait lui arriver. Il devint le gendre du roi. Le mariage fut scellé et lui, ses deux enfants furent héritières et héritiers du trône ca Mboki. a, yi ah ku dakk doomi buur nag doon goro bour, te ku doon goro bour nak mbokk yi am dooley bour. ca domi ñaari xale yi ku gor ke ku ki bour, ki jël doomi bour, ne comme bour moy bayam, mom du doomi bour bu jigen ci ga day dem ak mom ndax ban ba lan xam ñu jël amis du monde, gens de bien. La maison du vieux pauvre, le douzième, fut transformée par ses enfants en petit palais. Il dominait la maison de Cam, mais jamais il ne l'ont méprisé. gis nga Cam moomu doon wax de nañ génne yenn kër yi kër googa gone yi dañ ko defaraat defar ko ba mu tiim këram waaye mosuñoo jëlloo këram ngir ñaawale ko ko. amis du monde, gens de bien, lorsque vous avez à investir, investissez dans vos enfants. Et lorsque vous regardez les autres avec condescendance, ne pensez pas surtout aux autres qui vous regardent aussi avec condescendance ou pensez-y tant pis pour vous gis nga mbokk ku bëgg alal yaral say doom nang leen dimbale waaye nag ku xeeb ka nga ëppale bul xalaat ki la ëppale mbaa bu la neexee nga xalaat ko ndax xeeb na la c'est là que le comte va se jeter dans la mer foofu la léeb jógee tàbbi géej bakkan bu ko ira au paradis Salimata Diop ma à la cabine technique Massamba à la présentation à la, réalisation contes et légendes vous disent au revoir et à la semaine prochaine sur Radio au et à la semaine prochaine sur et à la